fi mu ne ñëpp a daanu. waaye satasi mooy sàmb ñëpp promotion ñoom ci ginnaaw ñu ngi daanu leer te xam naa ni ñiy seetaan itam euh, fi mu ne bëgg nañu lool waxuma sax euh, waxtaan ak xaal bi. Euh, te sëñ Mara tàmbaleegul de. ni sëñ maraaj ji demee. dañ mais ay ay sikkaru Pape rek émission la. wallaahi. <laughs> jërëjëf Oustaz Modou mom dal lolu ñu naan bu fi yemon sax mu neex. talibé yëpp a wallahi sal soppay Seydil Xaaji malik yëpp a bëgg. wallaahi. Xaaj Mara yal na yàlla guddal sa fan. amin amiin Pape Malick Mbaye yal na yàlla guddal sa fan. amiin. ñun mawdo rek ñu saf. wallahi wallaahi Seydil Xaaji malik rek. ku nekk la saf. ñun dal Alaaji Malick a ñu saf. ma sha allah mawdo rek. point Seydil Xaaji Malick point. amatul question Maodo point man nag sama question. xam nga ku tudd Seyduna Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. sa xel dem ci Alaaji Maalik. wallaahi wér ni mu maîtriser yonent bi. sallallahu alayhi nga xam ni moom rek ngay jàng téere moom Maodo. من خم سيدنا محمد نياتا بيبي بيجاو لا أمون سكي مو يوننتي بي نياتا بيجاو تي بوبي نياتا بيجاو تي ني لولو الحاج مالك دونغو كو اندي حاج مارا ديغنت سيد الحاج مالك اك يوننتي بي لا اله الا الله صلى الله عليه وسلم يعني دي بروبليم باسكو نك لي تخ ماودوني الك يا كارول اي جوليم باسكو من ام جومتي يا كارول اج مكه نخ من ام جومتي waye limu ni mom la yaakaar ni bu ko ci yàlla topé mu dem aljanna moy beugum sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam wa laysa li amalun alxaaka ya amali siwal mahabbati wa ta'zimi wa salami alaaji malik yonent bi sallallahu alaihi wasallam fa tabarakallah mal malik jef mbay tabarakallah haj moodu ñogi won ci cheikhul haj malik haj pap شيخ الحاج مالك موي سيرن بيغا خامني لا يجارا ولا يضاها ولا يباها ولا يمارا من سماه السماء له يد الطلا والغايه القصوى والملجا والمأوى شيخ المشايخ في الاسلام والدين المشار بالبنان الممكن بالبيان الذي إذ قام قام به وإذ قعد قعد مع الله جميع أموره إلى الله وفي الله ولله شيخ الحاج مالك كم عابد زاهد كم عالم ورع كم سالك واصل لولاك ما كان كم تنشر العلم كم تقري الضيوف وكم ترضي الإله وكم أسقطت الشيطان بروم كابتش جنرال شيخ الحاج مالك بروم باراسول بموي كم عزت كم صلت كم بشرت كم ولا كم كم كم وكم ثم كم أرشدت خيرانا بذلت مالا وعلما مسريا لفقير هاديا لجهول ابن عثمان كو كوي سين مام شيخ الحاج مالك حاج مودو ليمو ديف اك يونت بي صلى الله عليه وسلم دا بدون بغ نيو ما شاء الله تي ما شاء الله نجانغام نيكو جانغالك تيري يمو تاليف اك ييب وايي ما شاء الله فيغو نيو لاج ريك ناخ سي خم خمو شيخ الحاج مالك لا nga ñu laaj te cheikhul hadj malik seigne hassan mom rek moy serigne bi nga xamne تي علم العروض ممرك رك نيت كو نيول الحاج مالك مو تالف بور وي الحاج باب شيخ جالو فير ييغا ييغا خامي تي لا ني بيسي وي دي نتي وي شيخ الحاج مالك رك مو سي تالف بيم تي تالف نتي برانش لا تاليفي بوله تي عروض تيري با تدو احدى الحسنيين لتدو تود تي def tasawuf mi ngi ci jàngale tasawuf di ci jàngale sira ba pare di ci jàngale aruut nga xamni mam maam Cheikh El Hadj Malick radiyallahu anhu ma sha allah loolu da ngay gis ni ci la wax ni ci la wax ni mom mam Cheikh El Hadj Malick hamdan liman ma allama ash shi'ra ahmada موي عروض بيغا خامني موم لا مام شيخ الحاج مالك رضي الله عنه بند ما شاء الله دم بوتي بير ما شاء الله موتي تاغ يونتي صلى الله عليه وسلم دي سا جانغالي تصوف وايا بيمو ديمي بوتي بير دا فلاي واخ بيدي دا فلاي واخ ني ني تيغي يي وي بحر يي ني وي تي عروض شيخ الحاج مالك mi ngi ciy tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ci jàngale tasawuf waaye di jàngale aru xam nga xaji Pape jàng nga تخزرجي وللشعر ميزان يسمى عروضها يسمى عروضه بها النقص والرجحان يضريهما الفتى وأنواعه, قل خمسة عشر كلها تؤلف من جزئين فرعين لا سوى حسن ينيوي موي طويل مديد والبسيط ووافر وكامل نزاج الأراجز أرملا سريع صراح والخفيف مضارع ومقتدب متس قرب لطف لا إله إلا الله وهي gis nga boo demee ba ci biir. ca xasara ji ma ngoog ca xasara ji Cheikhul Hadji Malick bi mu ciy taalif. dafa wax maanaam pour nga mën a way way poésie pour nit ñi xamul arut pour nga mën a way taalif lay tax nga mën ko yooya Maodo li te mu gën a jafe Maodo da koo taalif. Cheikhul Hadji Malick da koo taalif dama bëgg ñëw ci question sëñ Modou Fall ndax. question bi xaj Moodu dafa am solo. mais Mara question bi ñor na ma de. macha allah ci loolu laay ñëw waaye dama lay wax rek sama maam Maodo. xam-xam bi ak ni muy taggee yonent bi alayhi salatu wa salaam. nga fi mu jaar yonent bi. gis nga baxru yi. baxru yi moom bi muy woy baxru yi. suñ baab moom dafa wax ni atil atil madadan wabsit wa waffir mukammila مهزجة رجزة رملة صراعا إلى اليدا صريحا خفيفا للإله مضارعا ومقتدبا متستقريبا ذا اعتداء مدن بيقمني أرتب ترتيبا دوائر حفترق وأبحرها كن ذا اختلاف لمن عدا وإن وسط حس السكون فسمه بمفروق وتد لا تني دهر في الهدى مو اندي سببه خفيف اندي سببه ثقيل اندي وتدو مجموع اندي وتدو مفروق لا اله الا الله أيوة، ما شاء الحاج مالك مالك مودو حاج مودو من شاء الحاج مالك النبي عليه الصلاه والسلام خمغا Cheikh Hadji Malick gis nga لاميه lamiya waaye du ma ñëw ci lamiya lamiya ak bu daa nga xam ni ak nuuniya nga xam ni bu ci bu ci dugg rek macha allah nga xam góor gi kenn du moom xoola laami yi sëñ xasan Cheikh Alhaaj Malick ci indi ñetti nakira ñetti yoon daf ci indi bu indee wuyu rek day indi day baamu ñaari nakira barak ban ñaari nakira gis nga day tàmbalee laqad haja qalbi lil xanini ajulu muy benn wa ila waadi al aqiqi ajulu muy ñaar benn nakira مدم بتبير نهودا كوسر قد حصل الله كوسرا كوسر كوسرا به ينتفي يوم القيامة غليل وهي مدم بتبير من صبير صبير صبير خلا حجم صبير صبير قد أذلت وأسبلت له فنجلا حر وذال محول دعا ثانيا لما اشتكوا فورا مائها وكان انكفاف للصبير عجيل خلا ñetti yoon sëñ Xasan gis nga sama maam Cheikh El Hadj Malick téere bi mu indi ci borom balaaxa yi dañu jàngale ni Hadj Moodu wayun ata mu nakkarun mu karraru te gaayara wa anhumu qad dakaru ñaari nakira bu ñu dajee ci baat nga firi leen benn firi da ngay daan maam Hadj Malick tey Maodo aajuwulu bu njëkk bi gëléem la aajuwulu bu ñaareel bi gaaw lay firi gaaw nga dem ba ca biir mu indi kaw sarun gu njëkk gi bari yiw ku bari yiw la moom Seydina Muhammad kawsaran gu ñaareel gi dexu kawsara lay firi mm-hmm. mu dem ba ca biir mu ni sabiirun sabiirun sabiirun bu njëkk bi niir niir bu ñu climatisé moo daan keral yonent bi alayhi salaatu wasalaam sa waa jooju tëdd Madinatul Munawwara yaakaari jaam yi baayu Fatuma ak Umm Kulsum Ruqaytu Zeynabu baayu Abdoulaye Ibrahima Qasim maami Abdou Khadir Jilani maami Cheikhuna Tidiane yaakaari Cheikhul Haaji Malick Sy yaakaari Serigne Babacar Sy yaakaari Alhaji Mansour Sy yakari Alhaji abdul Aziz Sy yakari Alhaji abib Sy yakari maami Serigne Abdoul Aziz Al Amin موي سيدنا محمد شيخ الحاج مالك يا كارم موي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ديسغا نير با نير با باراسول بوبو دان كيرال سيدنا محمد ناخ مام حاج مالك ني نديكو نكو يولي كيمان كيمان بو نيو كيمان بو نيو دنجكاي تودي ارهاسا بوكول معجزه اه بوكول استدراج بوكول كرامه ñent lañu ñent lañu duñu benn waaye temps bi lay bañ mu mu ma damay njëkkanteeg xaaju Moodu ci question yow loo def neex na jëlal sa temps macha allah jeex na moom maa ngi ñëw ci question waaye irhasaat njëkk nubuwa lay feeñ moo tax dëgër dëgërluwaay lañ koy firi fa irhaasun dëgërluwaay la yàlla ko ciy dëgëral ndax boobu wax yu ñëwagul mujiza commencé gul Moustapha niir bu ñu climatisé te niir ba dafa tolok parasol te nir ba nga tudon malik motax mam maam Cheikhul Hadj malik mo xam ka don keru ci bir nir ba muy sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam motax benen sobir la benen sobir ba mi ngi firi niru taw moy kero bi Madinatul Munawwara amul taw ñu ñëw ñaan yaronte bi sallallahu alaihi wasallam fekk bobu al alxaaji bab Cheikh Diallo sa soppi bu sayyiduna Muhammad ajjuma la wax de ajjuma Moustapha mi ngi sañse lool taaru lool yéeg min bar moom Seyduna Muhammad taxaw bi muy xutba rek délégation bi jógee ca Madinatu Munawwara ca àll ba ñëw ni ko ee sang bi yaa ngi xutba de waaye maral dafa am taw amul dañu bëgg nga ñaan taw am keroog alxaaji Pape Cheikh Diallo sa soppe boobu Seydina Muhammad dafa tàllal ñaari loxo ya ni nganam nganam nganam nganam nganam ni tëf ci saa si asamaan si lëndëm ci saa si mu niir ci saa si mu lëndëm këris ci saa si muy taw di taw di taw di taw ba Moustapha xutba ba pare ba julli jumaa ba pare muy taw gaa ñi doon ñibbi ñu doon ñaan si taw Haji Bab Cheikh dañoo taw te yóbbaale taw te ba ndax ñaanu waa ji waa ji mën a ñaan muy Seydina Muhammad ñu taw te dem ajuma waa ajuma jeex muy taw samedi Moustapha ñaanam nga muy taw dimanche muy taw altine muy taw talata muy taw alarba muy taw alxamis muy taw aljuma ñu ñaané won taw defaat délégation tawte ñaan jakarlo ak waji niko ñaanal taw bi arrêté la ilaha illallah xala mustafa ni nganam nganam Hadji Bab Cheikh Diallo ni nganam nganam nganam ni teuf melni taw musul am xol mustafa di ndoxo di wax ak ndoxu taw bi ndax inondation dafa am mustafa ni e ndoxu taw génn len dëkk bi melni dañuy dàq ndox mi muy génn dëkk bi ci ñaanu wa waa jooju medina Medinatul mo منورة موي سيدنا محمد سمام الأجي مالك ني صبير صبير قد أذلت وأسبلت له فنجلا حر وظلب حول pour nga xam ne semaine la mooy daa saaniyan daa ñaan na saaniyan yoonu ñaareel ba lu ko waral xaaja xasan lamma shtakaw fawra maaya mooy ndox ma moo mujj inon def inondation ñu ñëwaat ñaan moo tax mu diire semaine di taw waye fa kaanan kifaafun li sabiri ajilu nee na ba ñaan ñaan gu njëkk gaak ñaan gu ñaarel ga ñoo tollo ci saasi taw bi arrêté sangu aduna ak laaxira haji pap haji mudu sa maam Cheikhul haji Malik mom sayiduna Muhammad moy léppam téeréem bi ñu wax khilatul zahab fi sirati xayril arab nga xamni suñ pap mi lay deg bokku na ci pédagogie boy netali waxu jàmbur nga ni diw moko ko wax loolu pédagogie la buñu yakar ni da ngay netali waxu waji rek xam-xam la yow yaaka jàpp yow mi ko jàpp sa xam-xam la waye nak amal pédagogie ni diw mo netali nangam suñ pap mi lay deg ni muy Cheikh al Hadj malik ميز لنا بين الغص والسمين دو ياكاي واخ سي koy wax ci yow laa ko déggee de waaw kañ jeex na mayyaza lana bayna والسمين في سيرة خير العرب جيخنا تاك لعالم العلام جيخنا تاك والراوي تفهم مهم لدي حابر لواي العرفان مهم لدي بين البيد والسودان جيخنا بل صاحب الباع المعروف مهم لدي بين الخاص والداني مهم لدي مولانا سيد الحاج مالك بن عثمان شيء ميلون مهم دفا فخي حاج مودو سمع ولي واو منار الدين الله رفعة واو إن أردت عمت عموم محمد وامني وامني وامني وبلاتو جنرال وكارتي جنرال أنا صبي شيخ الحاج مالك يقولي Sëriñ Aliou Gueye taalibe El Hadj Malick la moo wax lii El Hadj Malick. ala yow mu hoo. eh sëñ Aliou Gueye ne sëñ Aliou Gueye ne Hadj Modou Fall sëñ Aliou Gueye ne bi muy ñëw ci Cheikhul Hadj Malick. man lu ma jàng du ko dégg mbabba daara laa woon waaye bi ma ñëwee ci Maodo ba Maodo jël loxoom yu tedd ya baaraam yu sew ya dugal ko sama bopp ne nganam nganam lu ma déggati mokkal ko keroog bi la li génne adduna moo ko marsiya jooy ko jooy yu rëy yii moom la Pape Malick di nettali إذا نحن جئنا نحو من تعلم وجدناه سهلا لينا def leen nii waay def leen nii waay def leen nii waay lam yushaddidi waa Sénégal wa man lii plateau Cheikhul Hadji Malick la Seydi El Hadji Malick moom rek am plateau bu mel nii ma jóge Tiwaawan ñëw fii ci dëkku xalif général ñu fay organiser ziar général ma ñëw quartier général di way général ku jub taxaw yàlla na fi teewaat bis bu mel nii wa man lii bi ustaasi yu rabbi murido bila eh, xalwati bal himmatin ahmadi maa ngi ñëw wa man lii eh, bi ixraaj xaqaayiq naasi an wa man lii eh, bi tadraasil kitaabi wa musnadi wa man lii bi badlil fiqhi wa nahwi mantiqin bayaani maani badi bi musnidayay wa man lii bi warshid bal junay فمالي فمالي فمالي ولا شعر ومن لي بآداب ودرب مهدد ومن لي بنجم في النجوم وموسل سيدنا بكي من يواتي لخوتك أسول lan su ngeen bëggee ñu àndaat diwin jug leen taxaw awro daat Sidi Haji Malik yaa ma sol siiratal badri mi ko wade ala yawmu hoo wa man li wa man li pap pap pap Malik pap Malik wa man li waaw keñ pap Malik regarde-moi les yeux dans les yeux mooy mooy bët mooy bët dina nga xool ko bët pap Malik your eyes and my eyes. loo womanly, womanly. lii. tu me demandes une question attends un peu je vais te répondre womanly. ay eh, Pape Malick gaawal Pape Malik you ask me question wait a minute I will answer you Pape Malik loo wax dama guddee waman li waaw ma ne ana ñu sopp borom parasol bi alaaji Malick waman li sëñ Alioune Gueye ne maa ngi ñaan maa ngi wax ñu wax ma warlul ma critères ci ban sëriñ nga koy gis Hadji Modou moom la moom la sëñ Alioune wax waman lii ana kan moo ma mën a warlul ba gis critères yii ci sëriñ bu dul alaaji bi ustaaz ne sëriñ boo xam ne dalay jàngal ustaaz la waaye avec les critères maraboutiques ndax ida lam yakun fi cheikhi xamsu fawaidi wa illa fa dajjalun yaquudu ila al jahli ustaazu yu rabbi murido maam Alaaji Malick ne yu rabbi murido ko ne suñu Alioune Guèye nee na sëriñ la boo xam ne xaj Modou Fall dalay tërbiya ba nga ba nga yëg yàlla saf yàlla di taxamti ku yàlla sës rëkk ci yàlla alaaji Malick day jël taalibe yéegal la ba nga mos yàlla bilaa xalwatin te xoola du la wax ni jëlal tur yi nga koy wér di wér di def xalwa waaye doo def xalwa te ci saasi si alaaji Malick piloté ba nga yéeg ci yàlla bal himmatil islah Ahmadi ne waaye yitteem yitte yitte ci himma ci lay yare moom Cheikhul Hadj Malick waaye loolu mi ngi ko donnee ci Cheikh Sidi Ahmed Tidiane waaye mi ngi ko donnee ci yoon ci Yàlla Muhammad waman li ne maa ngi wax ñu wax ma critères yii may bëgg laaj ci ban sëriñ ngi koy gis ku dul Cheikhul Hadj Malick bi ihraaj al haqaayiq nasihan ne génnee yoo xam ne xaqaayiq la dëgg-dëgg xam-xam waaye di laabiri nit ñi واو ومن لي واي سن باب كرسي لن لو واخ بتدرس الكتاب واو ومسندي ومسندي ومن لي والعلم الفقيه نزيل علم اها خليفة شيخنا نجات جاري خليفة سباني ما سباني ما سباني لخوتك سباني ما سباني ما سباني سيد الحاج مالك سي هو العلم الفقيه نزيع علم جخاي خليفة شيء خنان هجات جال خليلنا سباني ما سباني ما سباني ما سباني ما شيخ سيد الحاج مالك هو البحر الحدام فلا يطامع إذا الأموات فادت من معاني خالد سباني ما سباني ما سباني آه سباني ما سباني ما سباني هو العلم الفقير نزيل علم آه، حاج باب مالك من يوتي ci حاج xaaji Modou Fall ci El Hadj Malick ak wax naa la léegi taalif yi mu ci taalif waaye bi nga xam ni moo ci gën a siiw te suñu way jur suñu maam alxaaji ibrahima saaxo moo doon wax ni téere bii ñuy wax xilaatu zab ku fanaanoog moom ci biir néeg boo xëyee